projet de loi bu amnistie général ay mbir yu ñeel wàllum infraction criminelle ak correctionnelle yu ñu amal benn fan ci weeru février ci atum 2021 jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 yóbbu nañ ko ci pencum ndaw réew mi ngir député yi mën ko saytu démb mu mu jaar conférence des présidents tey ñu war koo jébbal ak commission des lois bu décentralisation bu travail ak bu droit humain bala ñu ko jox député yi ñu koy voté ci plénière projet de loi boobu nag ñu xaatim ko ci juróomi article juróomi article yi nga xam ne ni ni ko boroom xam-xam yi di jàngatee wuute na lool rawatina ci ay mbir yu ñeel Ousmane sonkoo diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ak diggante Ousmane Sonko ak Adji bokk nañ am déet ci bile projet de loi ña nga xam ne ni nag seen xam-xam daa ci ca wàllum yoon ku nekk am ci sa taxawaayu bopp bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Amadou Ndiaye muy avocat la cour mbir mi nga xam ne ni moo boole maire ba Ziguinchor ba ak jëwrin gi yor wàllum tourisme bokk na ci bile loi d'amnistie ndax mbirum diffamation la te diffamation bokk na ci li nga xam ne ni bile loi da koy daal di faxas waaye beneen mbir Ousmane Sonko bu ñeel diggante mag Adji Sarr nee na loolee mbirum interprétation lay doon Serigne Thiam di professeur ci université Cheikh Anta de Dakar moom it jàpp ni mbirum Ousmane Sonko ab Mame Mbaye Niang naam mbir mu ñeel ñaari nit la woon ca njëlbeen ba waaye bi ñu joxe peine bi ba pare nekkatul lu privé te bile loi d'amnistie boole na ko ci yëf ya professeur Iba Barry kamara moom jàpp ni ay dossier Ousmane Sonko bokkul ci disposition yu nekk ci biir projet de loi bi ak lu ci mënte xew bu ñu sukkandikoo ci article bu projet de loi bi ña nga xam ne ni ñoom la ñuy woowee partie civile mën nañoo sàkku ci ab juge civil ngir ña nga xam ne ni ñoom lañu amaloon affaire ci yoon te yoon daanoon leen ñu mën leen laaj seen ndàmpaay bu ñu sukkandikoo ci maître Djibi Diallo